bonsoir seen fidèle téléspectateur ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di am mbégte ak contentement di ànd ak yéen à travers votre scène leader 2A TV ngeen di si ànd ak Siste Ngoni la voix des sans voix l' de la nouvelle génération fii ñu ñëw nag moo di kër mbay Fall xale yi di ko woowee KMF ki ñu seet si mooy ki ñu toogal boucher numéro deux xale boo xam ne bi mu duggee ci làmb ak léegi yàggul mais lamb mu ngi koy bàyyi xel macha allah ndax nag ñëw na ci làmb neewul ne sama mag rek mbër la yam ci ngi bay waaram ci làmb def quatre sorties am quatre victoire waaye ñu war a waxtaan rek moom li nga xam ne moo di carrière am waxtaan rek moom li nga xam ne moo di actualité bu Siteu nuyu nañu la. waaw Ngonita fay naa la bu baax di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu sama gaa yëpp waaw di nuyu gaa yëpp di nuyu waa Kër Mbaye Fall gi yëpp xam nga di nuyu waa Patina beeg ñëpp gétt geeg waaw waa Kër Mbaye Fall su ma limee damay juum waa ak grand yeeg paa yeeg ñëpp maa leen di nuyu quoi. noonu la demee. Bousse ñu gis bi nga duggee ci laam ak léegi mën nañ ne yàggul nga ñëw def quatre sorties am quatre victoire Bousse nañ lay waajee ay combat am. waaw comme ni ko gars di waajee rek yaa ma gën a xam gars yi topp sama ginnaaw xam nga di ma toppatoo di ma gëstu di ma nemmeeku waaw yaa ma gën a xam ma jox leen cër ñu jox ma respect di ma jàppale si lu bari nag sama gars yi nii toog comprendre nga waaw ñu ñu war a jëli ji loo xam ne ñoo ko moom ci làmb ñëw séddoo koog waa Kër Mbaye Fall kese. loolu kese la ñu bëri bu ñu gisee buuse taay bi mu am ñu ne buuse du mbër ndax yorul yaramu mbër waaye am ñu ne xale bi mbër la ndax def na 4 sorties def 4 victoire si sa dernier combat nag la ñuy ñëw mooy sa combat ki nga xam ne moo di Alliance Baldé bi nga jëlee combat boobu gars ne buuse jël na risque lan moo tax mu jël Alliance Baldé nga jël ko yàlla may la ci ndam mais lan moo la poussé woon nga jël combat boobu. yàlla seet na ni man combat ma jël yëpp dañuy damay xëy rek ñu ne ma sa combat ak diw taxaw na. man ak alliance nag comme que gars yi dañ ne woon dama doon tëkku njaago bi affaire yooyu noonu te moom la mujjee daan peut-être bu ma ko jëlee dinaa wone ni man ak moom làmb la quoi parce que gars yëpp dañ naan moo ma mën léegi nag loolu moo tax ma jël combat bi bi ma ko jëlee ma jàpp ko si biir géew bi defaral ko foofu noonu amul génn dugaat loolu kese la. mais Bousse dañoo gis dafa toppee njaago or bi li nga xam ne kenn xamul ko toppee la la parce que Laurent na pourvu ba ci kanam mu amaat combat troisième sortie mu am victoire laajaat Étienne Étienne ne ko na xaar ba ci kanam mu defaat quatrième combat daan na Étienne nag làmb boole nañu ndax ki nga daan moom laa daan mais buusi ak njaago bi lan moo nekk seen problème. Barke Serigne Bamba awuñu problème booy ñoo bëgg loolu. du man de booy la. billaay wallaay man xooluma ko du ma moroomam man liis laa soxla. Eh, lu tax njaago nga ni doo moroomam. mu ko si àdduna man magam liis laa soxla magam liis njaago ñooñu ñooñu laa tollool jamono mais du moom booy ñoo bëgg loolu parce que dañoo bëgg combat xale peut-être si la ñuy gën a gis seen bopp mm. mais billaa bu dee manag ak la rek xooluma ko sax billaa wallaay. mais la moo tax nga ne xooloo ko te Etienne dafa ñëw ci làmb gars yi ne comédien la moom mu ñëw ne du ma comédien mbër laa mu def trois sorties daan mbëri yoo xam ne ay mbër lañ ci biir làmb nekk ñu mbër yoo xam da ngay ñëw rek salaax salax leen kon lan moo tax tey nga daan laaj njaago bi tey nga ne magam laay laaj danga nga koo dépassé walla léegi yow xoolal samay adversaire samay adversaire xool nga leen xoolal xoolal ni mu daan ak samay adversaire ah, Laurent moo daan Boy Plateau moo daan Bou moo daan ki nga xam ne moo di Alliance Baldé waaw mais alliance Balde maa ko daan jeexal na wax. waaye daanagoo Bou Siteu est-ce que doo jël Bou ngeen doog a daje si kaw. Bou man ak moom du làmb bu nu làmb boole woon sax ma jël de man bàyyiwuma kenn si làmb xooluma ay diw géejawaay la dëkk ay diw man Kër Mbaye Fall moo ma ñor baru Kër Mbaye Fall laa dul bëreel mais ñooñu ngay wax noonu dan maa ñemewul problème bi loolu la ba si Laurent Ndiago moomu ñemewu ma. parce que Laurent moom pare na nee na bu maanaam loolu dama ciy wax te dama ciy xuus lu bari làmb boo bëggee sa yaay ñu tabaxal ko kër noo te nga ne góor laa da ngay ñafe liy tax nga am titre foncier da nga koy ñafe si biir kër man sama yaay tabaxagul tabaxaguma tabaxalaguma ko kër te dama ko bëgg a tabaxal kër te si làmb ji laa ko yaakaar est-ce comprendre moom na ñëw ñu jaayante man ak moom ku jàll dina tabaxal yaayam kër ku daan sa moroom di nga tabaxal sa yaay kër gëm-gëm la nekkul estimé wu pour nit ñi di la yërëm bàyyil yërëmtalu bi si TikTok bi naan sama yaay nii sama yaay Ketchup boo amee lu muy tabaxalaate kër mu yóbbu ko si ay mbokam moo gën loolu noonu mooy wax noonu naan ay nangam ak nangam lañ seek seekuñu ay affaire tabaxal kër ak yooyu noonu na ñëw ma duma ko daan ko moo gën si moom li muy def nii. Boucher da nga yaakaar ni nga koy waxee nii noonu la yombee yow yaakaar nga ne njaago or bi da ngay ñëw jàkkaarloog moom daan ko nu mu la neexee bandi géew la de Laurent Ndiago. lu mu ma ëpp. du dara du lenn lu ma ëpp barki Serigne Bamba Mbacke maa ko wax fii Laurent bu dëggalee boppam ma ko daan. yow xale boobu boo jëlee avance am say mbokk dañuy bëri bëri bi par force ñoom sax dootuñu am jàmm duñu nelaw. waaw yow ay mbokkam nga xam bul xam samay mbokk gis ngeen comprendre moom xam nañ ay mbokkam ah mais man bul xam samay mbokk bu jour làmb jaa lay comprendre. yow ñeme nga cumukaay njaago. waaw yow man may cumbukaayu bambara cumbukaayu joolaa lépp nga naan ma lan. ngay lan. cumbukaayu NG NG saa ragaluñ ko. Mm. dañoo pare ñun jiitaluñ cumbukaay ñun suñu talent ak suñu doole la ñuy jiital balaa dara. mais bu dee talent ak doole kay si Laurent Ndiago la fekk ba. yow loolu nga gis ndax yow nit day joué ci apparence mais nit ki da ngay xool li nekk si intérieur am. te Laurent yi muy def nii yëfu daw la ay titre foncé nañ dem géej moom bu dee bànn la ni mu koy woote nañ dem géew ñëpp fekkee caméra nga xam vaar day am mais daw bi la war a bàyyi moom kii su ko bañul waru koo bañ. daa da koy may sens. ñaata combat am. booy kii am 4 combat 4 victoire alliance bi ko dóor ba mu daw génn saako yi booy bi jàpp ko noq ko daan ko nañ waxante dëgg na bàyyi affaire daw yi Laurent ñëwal nga bëree nga bàyyi sa comédie bi ak saraxtu bi ngay nekkee si TikTok bi. yooyu dox yaakaar nga ni day comédie. non day comédie moom comédien moo ko dugal si làmb. programme comédien mbër la de. kii ku ko xam Kër Mbaye Fall fii xam ne dafa yàgg a jël ay drapeau maanaam jamono jooju preuve moo amul ay téléphones yi rek. buusi ak nii. da ngay laaj kii dangar bee bëri mm. bokk la ay bër wax wax wax nii ay comédien di créer ay kàllaamu du yooyu de. Mm. làmb ji doole la talaa boo jëlee booy bi di nga xam lépp dëgg la noonu la demee nag hmm. noonu la demee. <laughs> Bousse yow kon instant bi ni promoteur bu la seet si du tàggee ci yow da ngay jël avance bi jox ko Baye Fall ñu xent si café. barki Serigne Bamba Mbacke waxatuma léegi de yaakaaratuma si ministre yaakaaratuma si député yaakaaratuma si homme de politique booy yi nii ñooy jënd bologu ticket yi te pare nañ pour jënd ko ñun dañoo pare pour làmb jël moom ñëw séddoo koog waa Kër Mbaye Fall xanaa déggoo lu ma la wax man bàyyi naa jënd bologu ticket léegi waaw. Boucher est-ce que mafia bi nga xam ne moom ngay war di indi stade est-ce que mafia parce que dañuy gis Boucher ci côté mobilisation dafa des lu waral loolu. looloo tax nag coté mobilisation bi dama ci wax maanaam amaana booy ñoo comprendre woon comprendre nga ñoom ñëpp dañoo yaakaar ni woon chaque jour man dañ may may ay ticket parce que sama gars yi dañ may jàppale affaire yooyu noonu ba tax na ñoom dañuy croiser la bras mais après léegi lañ comprendre ne gars yi defaluñ ma dara ñoom ñooy xoslu léegi pare nañ te ñun ñëpp dañuy futee ko bu jaree ñun ñëppay dugg si biir géew bi dañ koy dugg. mais attends soo amee combat parce que bu see numéro un damay gis muy jàppale ay mbër ku ci mel ni Bou Siteu yéen ñaar ngeen bokk ndey ak baay xanaa boo amee combat kon problème mu bloc moom du doon sa problème. waaye maa ëpp problème mu si àdduna bi fu mu toll nii. Ah, ma dégg ne bu amee combat Bou Siteu di jënd bloc yu bëri mayee ko. waaye wuy ma man ay waxam taxuma nekk fii di wax ay waxam sax ñun xoolal instant yi nii xam nga la la ñuy def suñu làmb lu des suñu kanam. mais il faut nga leeral pour que ñi nga xam ne après ñoo la war a jàppale ñu comprendre la prochaine fois. non man maa koy waxal gis nga kii dafa nekk booy boo xamante ne dafa teel a gëm boppam. nekkul mag moo tax mu dugg si làmb ji wala yaakaar si kenn bu dee yaakaar kay ay moromam yu bëri ñoo yaakaar ñoom parce que moom lu mu am bokkook nit ñi mais sénégalais dafay jaawale kuy nekk ci ay réseau di wax day def social ak koo xam da koy dund sim nga dugg ne damay def social def benn vidéo jël ay nit dafa yomb loolu man sax mën naa ko woo quelque booy jënd leen sips te pourtant benn yoon boobu lay yem mais social boo koy def da ngay njëkkee si ñi nga xamante ne ñoo la gën a jege mais pas di wanewu pour di nax nit ñi yooyu doxu fi te daafa am yu ñuy xool parce que si réseau yi la ñuy yëngu xam nga am yu ñuy xool mais yëpp dañ koy dénoncer noonu la demee na si je comprends bi man maa ko ñeme maa koy wax ça veut dire que bu amee combat buuse ni muy jàppale ña sa mbedd ba du ko jàppale. Eh, moom i mbokkal waxu ko man maa ko wax. jàppalewu ko dara. kii lu mu am moom moo ko ñax dafa mooy jaay ay téléphone am. di jaay ay buuse numéro un jàppalewul. buuse numéro dara. maanaam jàppale xam nga la mooy jàppale. Mm. ay nit boo boo ko bëggee mu am. Mm-hmm. danga koy won nu ñuy nappee mais bu ko du ko may jën. Mm-hmm. comprends parce que yow mënoo ñëw ñëw may ko benn dix mille ne ko jënd si lii ak yow rak nee nga yow yor nga xaas comme ni nga koy waxee te dëgg la am na mais inscrit ko saal inscrit ko fii si réseau yi muy reer normal di tërën normal mm. mais tamit loo xam ne mbër bu ndaw moom moo koy defal boppam bu keneen di bëri ngay rey sa bopp. keneen waree bëre ngay wone wu fépp ne yow da ngaa taxaw kooku te nga am lu la jege rëkk te defaloo ko loolu ngistal ak sàmba alaar la ñun gëmuñu ko ñun xooluñu ko sax moom waru ñu taxaw fi sax débat si moom kom nga ndax ñun kii da li ma ko xamee rek lu mu mës a am moo ko may boppam noonu la demee nag nice. mais Bousse. champion la waaw ñoo ko wax billaa wala moom rek la ñuy topp waaw yaa ma gën a xam am ah, waaye KMF nee na ñoom Boucher 2 rek la ñuy topp. booy ndaw yii la am ñii nga gis nii mais à part loolu te Kër Mbaye Fall benn mbër laa muy kii moo fiy dem. bëre ji def ci fula daan ñëw. Kër mbay Fall bëri na ay mbër dañ ko war a mën a jàppale. non mais moo fi teg tànk. parce que bu dul dara ñun waxuñu sax ay lii mais maire yi fi nekk ak amuñu fi benn njëriñ au ñu jàppale mbër yi nga xamante ne ñoo ngi jaay seen dëkk dañuy nekk fi di defar ay talikaro fekk mbër baa ngi soxla leneen mais talikaro yi mënoo see dagg lekk. mais ñi lay représenté sa dëkk ñooñu nga war a jàppale mais pas tabax benn tali wala tabax benn jardin public boo xam ne garab yi doo ko roose sax après day dee yooyu doxul. seen fidèle <laughs> seen fidèle téléspectateur ah yéen a ngi jàkkaarloo ñun à travers seen scène préférée 2A TV KMF la ñëw from Kër Massar ah dégg ngeen Boucher li mu wax Boucher gars yi nee nañu Boucher numéro 2 day tànn adversaire. ah dafa bëgg lu nooy. man noo loolu kay gars yi waxoo ko man. Mm. indil ma adversaire ba xam suba du ma bëre. Mm. barki Serigne Bamba sama moroom góor dawul sama yaram. gars yi ñoo bëgg combat yooyu noonu ma lay wax mais man kooku doyuma ko. barki rek moom ñun ñoo ko bëgg parce que xam nga dafa nekk ndaw di nekk fii di yóotu ay ñoom balagay xam nga ne loolu comédie la. yow nga am trois ko maanaam jox le ma Balla Gaye Gris 2 te sa moroom nekk fii def loo deful nit ñi bëgg ko kii waru ko kii man jàpp naa ne nu mu tuddati sax mag ji. liis sax kii bu ko jàppee da koy lem ah, man wóor naa loolu génn ci li nga ne ñun ñoo ko bëgg ñun tëj gémmiñam parce que Laurent dafa bëri wax ay xam naa booy Kër Mbaye Fall Kër Mbaye faal moom ñi mu fiy wax ñëpp suñuy doom lañ ñi mu fiy lim ñëpp suñuy doom lañ ñun ñu taxawee ñun dañuy raser jëlal booy bi nga bëreeg moom booy bi waru la de mais ñun ñoo bëgg combat bi te nga bàyyi sa affaire tapet yeeg comédie yi nga nekkee noonu la demee. buuse man bëgg naa xam yow loo yawee njaago bi. waaw déggoo ma booyee ko yab mais man lijjantiwuma ko sax nee naa la lu may diwoo moom xeeñoo ko barki Serigne Bamba. mais njaago bi du comédien mbër la de. waaw bàyyi ma waay TikTok bi kooku tik bu dul woon TikTok kenn du ko xam. wax ma bu woon woon TikTok kenn du ko xam. mais mu ngi prouvé di daan ay champion. waaw kan la fi daan ban ban champion. yow buy plateau champion la. wax ma ba lan. buy Bou Siteu la. plateau plateau premier combat am. mais Alliance Baldé champion la. waay bàyyi ma waay ah mais Alliance dama ko ñàpp daan. mais daan bi Laurent daan Alliance Baldé moo gën a garaaw bi ko daan. nga ne bi ma ko daan bi mu daan Alliance Baldé man dama reprise par Alliance Baldé nga naa ma lan si digg géew bi digg ñàng bi. tegal ko seize teq daan ko nga naa ma néew ak naa waay bàyyi ma waay. njaago bi léegi dañuy génn si njaago bi ndax naa njaago bi moom li ko préparé rëy na waaye di nga xam ne yéen a yam yéen ñaar buusee fan la jëm. bëgg naa ardo. ardo mel na ardo doom parcelle bi taxawal boucher ardo mi bëri ak liis njaago. waaw naa liis njaago daan ko fan yee doomu parcelle bi. waaw jeex na ardo la bëgg. ba xam nga ne boo jëlee avance ardo di nga bëree giro seeraas. ñëpp laa bëgg a bëreel déggoo ma de naaru sokaas ak ku ñoom ñëpp pare naa pour bëre ak ñoom yàlla seet na ni gars yi xamaguñ ma man pareegu ma pour daanu léegi si làmb wóor na sëñ Bamba. monsieur loolu foo ko teg. fi ma ko teg fu wóor sama doole sama ñàkk. poussé. est-ce que nekkul lumière bi xam nga caméra bee tàkk nii mafia bi toog si ginnaaw nga ñeme di ko wax. ñun ragaluñ loolu barki sëñ bàmba ñun danoo pare pour joxe suñu bakkan si biir géew barki Rasulullah ñun waa Kër Mbaye Fall Kër Mbaye Fall lañ bëgg a yóbbu si kaw ci kanam barki Seydina Mohamed luñ doon rêvé pour am lañ lañ bëgg a am neewul ne man maa am de mais ñii laay àndal génération bi lépp lu bees président bu bees leader bu bees mbër bu bees lépp day bees xamatuñu. yaa président bu bees. day bees tàq. buuse instant bi dëkk bi fi mu toll kenn amatul fi wax man fii laa de buuse foo ne. waaye man Sonko laa bokk. Eh, man waxuma ko de du samay wax. ma de. damaa ragal police ba sama carte d'identité amee ma ko police. yee ñun xoolal ñun Sonko rek la ñuy topp xale yu ndaw yi Sonko rek lañ bëgg bari Serigne Bamba noonu la demee nag waaye ñun ku defar suñ dëkk lañ gëm de. buuse da ngay politique. Sonko lu ma ñun Sonko bu ñun ñooy jënd ay barazelem ak ay protégem ana sama téléphone. ana sama téléphone. lëz lëz ma sama téléphone lëz. ay waxam la nee na moom Sonko rek lay topp du samay wax de. déggoo lu mu de sama téléphone a ngi nii sama téléphone moo ngi nii. yaa ngi gis ma féete. Ah, yeewi askan wi kii dafa war a yeewi askan wi kii la Sénégal yaakaar fu mu toll nii budul moom day yàqu la demee. bàyyi lu ma si mënul fekk ma assumer samay responsabilité déggoo ma de man soxlaw ma dërëmu kenn li may wax chaque jour barki Seydina am Sonko bu toogee président bu ma xam. kon yow troisième mandat. waaye lan laay d'accord te xam luñ fi waxoon ñoom ñëpp Sénégal xolol dafa neex yàlla moo ko wax loolu. njiit njiit saay boo toogee ba mu neex rek da ngay da ngay bëgg continuer mais xolal li nga waxoon yàlla suñ borom li nga ko ñaanoon may na la ko yamal foofu. mais fan yi problème de nervi yi ñu doon wax Boucher d'accord na si wala d'accord si am na wala amul. am na kay. parce que ku ci mel ni Balla Gaye génn na def sorti ne loolu amul. waaye man xolal Balla xam nga la laa lay si Balla Gaye dafa yaakaar ni moom dafa yaakaar ni moom Ketchup nu muy nekkeek moom wala nu muy àndee moom man damay ñëw di di topp si ginnaaw man li jëntuuma ay Balla Gaye ak ay Modou Lo ak ay ñeneen ak. ñoom ngay wax de xanaa déggoo lu ma la moom nee na moom moo may teg si yoon moom na ñëw teg ma si yoon. gisuma lu may gisuma lu may ragal loo sama àdduna yéen yéen a ngi dégg man li ngeen di dund noonu man ñu man xolal damaa fekkee li leen fal man tisatu Balla Gaye laa yàgg a sol bu subaa naa su dugal sama publication dinaa dugal tisatu Balla Gaye yi ma daan sol yu cher dix mille francs kon am naa droit wax si moom buñ tara buñ trahiré dañ koy wax xaalis moo tax ñu soppeeku du lenn lu dul xaalis barki Sëriñ Bamba lu ma si góobe naa ko gar li gën a con yow mbër même bu fekkee dañ la neexal xaalis parce que xam nga ñun fekkee wuñ fi ngay signé papier wala lii mais yow boo mën a fen booy wax sax da ngay maîtriser li ngay wax mais nooy taxawee ah naan nit ki chef de l'état te xamoo kook lu muy présenté yow nga ne da koy défendre Balla Gaye foofu la njëkk a nekkee dof parce que yow booy booy nit ki da xam sax lan lay jëriñ si ndéew mi yow nga ne dangay defaan nit ki liggéeyam rafet na te xamoo bon poste lay occupé si dëkk. li ma jaaxal yéen a ngi wax ak ku àdduna bi bëgg. non ku àdduna bëgg fii affaire de bëgg amu fi ñun ku ñu xam suñuy réseau lépp loolu la ñu xamee dëgg tegu si yoon ñun nekkuñu fii siw nga wala nit ñi bëgg la tax duñu la wax dëgg Sénégal naa feq yi ñoo bëri foofu moo tax Sénégal àgg fii mais bu doon ku nekkul si yoon ñu wax la dëgg dëkk bi day romb fii ñun ñooñu gëmuñ leen buñ attardé si ñoom sax ñooñu am nañ li ñuy am ay sato ba pare ñun ñoo war a jàpp mbëri noq tabaxal suñu yaay ay gàlle ñooñu nañ leen tegee na le buuse kese lañ wax. booy xamuñu ay Balla Gaye yi de booy nii biñ bi yàggul ñun ñoo ñun ñoo fekkee ay jamono seen i jamono. c'est-à-dire yéen yéen xew wax si ñoom. am nañ droit wax si ñoom ñii fekkee wuñ barki Seydina Mohamed noonu la demee nag bàyyi ragaluñ dara ñun bàyyi. mais buuse fan yi dafa am benn mbër boo xam ne dafa am lu ñu ko jiiñ muy Ada Fass gars yi tuddee ko aada Ndakaaru ndax mbëru dëkk la. ñu jël ko daal di koy teg loxo te mu nekk mbër boo xam ne mbëru jeunesse la mbëru dëkk la bu génnee àdduna mooy génn ndax keroog gis nañ ni mu duyee stade bi ban jàngat ngay wax ci mbiru Ada Fass. non kooku fierté làmb la parce que nañ ko nangul lu mu doon quoi parce que yàlla moo ko def Ada jàmm lay am ak lu mu mënti doon comme li njaago bi keroog d'accord musumaa d'accord si ay kàddoom parce que tiktokeur la. bàyyil njaago bi si lu am solo. est-ce que ngi dégg nee na gars yi kenn génnul wax dañoo war a génn wax. waa Fass. gaa yëpp nañ génn wax booy bi ñu jàpp téye ko si kaso bi ndax 300000 bàyyi man sam benn booy ak nii ak ñeneen ak ñeneen waaw xar moo tax maanaam xar boo xam ne leeru leen ba xam moom moo ko sàcc ñu tëj ko si 2 ans. ay yéen ak yeneen ak yeneen ak yeneen bàyyi Sénégal dafa metti gars yi nañ lijjantiwaat justice bu baax kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi am gars yi ñu ngi wax lu leen neex bu kee ne côté bee ñu bàyyi mu sedd bu kee génnee ne côté bi ñu tëj. Mm. ràpp si kaso bi loolu la la ñu war a bàyyi jaay doole bi day jeex te Sonko dina ko dindi barki Serigne Bamba. mais Bousse tey dañoo xëy benn information boo ma boo xam ne il fait le buzz sur le net mooy lan dañoo gis benn information ñu ne Guinéen yëpp lañ bëgg a delloo seen dëkk. waaw loolu moom sama dafa am benn manifestation boo xam ne ñoom bi ñu xoolee ba ci biir la 100 pour cent 100 bi yëpp ay guinéen lañu te ñoom amuñu woon droit pour def marche boobu ñu ne guinéen yëpp dañuy dellu seen dëkk te gis nañu fii boo demee marché Thiaroye ñiy yenu ñiy raxas carottes yi c'est-à-dire yeneen genre liggéey yu bëri ñoom ñoo koy def te liggéey boobu ku ko waxoon boucher du ko def mais guinéen yi bu ñu génnee Sénégal est-ce que tamit duñu am problème. non boo xoolee fii nii ñu toog nii rek ñàkkul ay guinéen. yow <laughs> yaa ma gën a xam analaato jamto noonu la demee nag kon ñooñu ñun ak ñoom ay ay frère lañ ak ay sœur ñooñu bokk nañ Sénégal ba pare kenn mënatul leen fee jëlee fier d'être guinéen ñun ñëpp nag waaw benn lañ baay ñoo bokk juddoondoo sa maam Adama ak Awa waaw fii ku tane dimbali sa morom loolu la yàlla wax nañ leen dimbali comme que ñoo leen tane barki Serigne Bamba Sénégal c'est le pays de la teraanga gars ko bëgg a def pays jaay doole rek mais du loolu bàyyi nañ defaraat xol def ne àdduna la wax waxul Sénégal waxul Japon waxul pays àdduna la wax muy duniyaa. Buuse Ibou Afia combat bu neex gars yi di ko xaar waaye kii di Ibou Afia nee na Buuse pour ma bëreek moom il faut day percer ba ci kanam. waaw mais moom ñaata defet la kooku man dinaa taxaw di pers di tontonte ak moom si ay. tig mais champion la Ibou Afia mafia bu doy waar moo koy topp. man xooluma loolu na am mafia ñun ñii ñoo ñuy topp te bu ñu demee barki Seydina Mohamed bu fekkee mënuma feesal benn tribune stade bi yàlla bu ma jëriñu bàyyi lu ma lay wax rek loolu moo ñu kale woon te réglé nañ ko jeex na noonu la demee ba ba ba ma dugg arène nationale ak jàmm. sa yaram daa tàng. ba ma dugg arène nationale ak jàmm incha allah di xam ne xolal yàllaa fi ne. bàyyi léegi maîtriser nañ lépp xam nañ lépp Ardo buuse kan la tegaat bëtëm ñëpp ku ñëw rek ku ñëw ñu jël baax na sekk ndaanaanoo yow mbër gi wël yi doomu meer dëgër bu sóor bi sekk ndaanaan borom yoof yow ku la jox avance sam ni nga ko jël xanaa déggalu ma du Laurent da ko delloo nañ ma indil avance kan moo la wax Laurent da ko delloo bàyyi ma waaye affiche bi taxaw fi woon bañ gis ko axlu làmb ah, ah. na ñëw sekk ndaanaan sa avance boobu ñu delloo woon na ñëw fii ma lekk ko ba pare boole kook ay nelaw yu metti xale bu dégg galañ bi. waaw bu boobaa nga xam mu géwal piir bu boobaa nga xam ne ñun ay géwal moo ñu yar mu meer dëgër mu sóor yow nga ne ku la jox avance ak buuse dëgër nga fitna baax na ba boobu noonu la demee instant yi wax ji sax jarul muy bëri man buuse Aliou Fat Fat amateur yi nee nañ loolu combat ko na ñëw ragaluma kenn xanaa déggoolum lax gars yi fi nekk di tànn devant tout le monde naan du ma bëreeg ay mbalit ak yooyu làmb ji daa am mbalit làmb ji amul ay mbalit de ñun nekkuñu fi di tànn xoolal dañoo bëgg làmb neex parce que ñun ñoo ko war a mën a neexal ñun ñooy ay xale nañ neexal làmb ji mu neex mais boo fi bëggee nekk naan ay mbalit tarabaxaa laa soxla fii wala kee laa soxla fee bëre woog say morom tojoo fenn ah yow sa mag li sax maa ko mën nga bëgg a taxaw fii naan ay mbalit su ma ko bàyyee damaa dee gars yi loolu ngeen di bañ a dégg suma ma ko bàyyee damaa dee parce que xolol defu fi dara defu fi dara luñ fi def defu ko fi quatre combats lañu am moom dangay ngay banque benn muy trois man ma am ma yokk si bii may la bonus te chaque jour boo ñëwee ma làbbali xaaruma la de man maa ngi bëre di am ay combat di daan toogal fii di dof dof lu naan ay MMA boo demee MMA sa ŋaam yi la ñuy dajji. baax ko amul fit du fa dem de te moom day dem ndax daa am fit te champion la. booy dem da ngay dem si loo xam. xamul loolu ay tànkam mënul jug mooy loolu waa bàyyi xam nañ loolu baa ñun xolal waaw Bousse bàyyi njaago bi Bousse ak Bouba bu yëmbal combat la dafa neex Bouba champion la kuy Bouba Bouba bu yëmbal wax dëgg fa yàlla après nga envoyé ma combat ma seetaan ko pour xam ko si yaa ngi comprendre si diggante yàlla yoo xamoo Bouba bu yëmbal billaahi wallaahi wa taalaahi maa ngi koy door a dégg bi man duma ma triser comme sawaay naan xaw ma diw ak yooyu noonu su ma ko xamee rek dama naan ni nga fi lim ñëpp wax naa la xam naa leen bu ma ko xamee rek dama naa la xam naa ko te billaay bu ñu laam bu amee palmarès bu baax rek na ñëw ñu bëree. Bousse ak ki nga xam ne moo di Meuse bu école de lutte ko euh, Sow yéen ñaar combat loolu dafa neex mais li ma jaaxal nag kombaa boobu Bousse déggagul muñal te Meuse moom it déggagul muñal ay boobu combat. lépp mën naa nekk loolu yëpp mën naa nekk barki Serigne Bamba. baay ñun làmb lañ fi nekkal na làmb ji neex rek booy bëgg ko ñii suñ ko bëggee rek man baax na signé naa war na sëñ Bamba buñ ko bëggee rek pare naa noonu la demee waaw. seen fidèle téléspectateur dégg ngeen buuse li mu wax nag du samay wax hmm? yéen a ngi koy seetaan à travers votre scène préférée 2A TV Boucher promoteur yu bëri dañuy naan sawaruñu tëggal buuse ndax promoteur mbër bi muy sawar a tëggal mooy mbër bi nga xam ne day mobiliser te buu du mobiliser. waaw xanaa déggalum la wax man musuma sama lamb yëpp premier combat ñaari bologu ticket laa jënd deuxième combat ñaar laa jënd troisième combat ñaar laa dëkk jënd waa yaaram aar mun nañ maa seede te dañoo jàpp samay combat bu dul woon ñoom moom lamba lambaay ñaaw ndeysaan mais ñu baax lañ idi maa ngi koy gërëm bu baax borom. ànd laa ngi gërëm waa yaaram aar dégg naa ne da leen ameel bor ci ay bologu ticket. waa ban bologu bor amul si lamb lamb dafa metti bor amu fi. monsieur Mack waay xoolal devant tout le bor amu fi. ñooñu ñooñu man ak ñoom ñoo far si yaa ngi dégg waaw ñu ma fayee tey man bu nu ma lay wax rek maay débrouiller sam bopp te booy dañ ko yaakaar si man léegi jeex na wax naa leen ko dëgg bi wax naa leen ko. foofu quoi comme maanaam ñu ngi naan promoteur kuy mobiliser lay lay tëggal. gis nga Boucher 2 li muy génnee Kër Mbaye Fall amul ku ko fiy génnee mais comme li ma la wax rek moom lu am moo may boppam. mais yow li nga wax noonu man d'accord ma si. keroog géotechnique ba muy bëree stade bi da duy. non mais bien sûr mais géotechnique bul xam ñen ñoo ko ñi ko jàppale. est-ce que Kër Mbaye Fall moom it champion la day duyee stade bi nekk si ginnaaw Kër Mbaye Fall mais Boucher mii mu ngi ci ginnaaw. non bul fi tudd Boucher 1. Kër Mbaye Fall dañoo yaakaar ni man dañoo yaakaar ne man milliardaire laa ba tax na maanaam ñoom bu ma leen mayul ticket dañuy jàpp ne man dañ maa may xaalis ma lekk ko te man amaana li ma leen di jox sama poche lay jógee essayer comprendre jàppalewuñ ma muy Abdou Karim Sall muy keneen ak keneen jàppalewuñ ma léegi nag booy jël nañ seen matuwaay ñoom ñëpp ay ñoom mën Naar ay ñoom Ndooy ñoom Badagay ñoom Wës gaa yëpp fekkoo leen fi dañoo dem maaro nii pare nañ pour jënd lépp. soxlaatuma daraay kenn sam booy yi nii waa Afia ñoom ñëpp mafia yëpp juboo nañ si kàddu parce que li ma leen doon nëbb léegi laa leen wax jàppale wuñ ma dama leen doon wax naan leen dañ may jàppale di suturaal sam bopp kenn jàppale wu ma la demee noonu la demee nag. waaw. d'accord. waaw joxoon ñu mais grand yaa ngi de. posé ma ay question rek yow posé ma si mbër bi. d'accord nga diggante Boucher ak Laurent Ndiago. na ñëw ñu nañu tapé loolu nga naan ma ay Laurent Ndiago waaye Liss sax booy na ñëw nga naan nii. waaye ñun ne boo leen jógee loolu boo leen muñal. muñal suñ ko dee. muñal muñal waaye mbër waxala mbër. kii na Laurent ñëw na Liss Ndiago ñëw. noonu la daa ñëw Liss Ndiago ñëw ñu Kër Mbaye Fall lañ dëkk de suñu ragalee tooñ bilaa wallaay ñu suñu ragalee tooñ. buuse bu ñu demaatee ba ci kanam buuse bëri na ay adversaire ci làmb mais buuse est-ce que nekkul de rasu man dama jàpp ne caméra yee tànk rek muy wax. non waaw yow loolu wax naa seeg yow ba taay nee naa la pare naa pour bëre ñëpp jeexal na wax wóor na sëñ Bamba. Kandji production maa koy sant bu baax borom TDR billaa wallaa nee na su ma amaatee combat mooy jënd bologu ticket yëpp Kandji. Kandji le grand promoteur. voilà promoteur de tous les temps. borom TDR nga xam ne bu dul woon làmb bu woon moom lamb suux ndax bañ gisulee kenn moom lañ gisoon koo koy Kandji borom TDR barki Serigne Bamba borom baax la li muy wax trisew si dëgg la ci moom barki la mais Boucher parce que làmb ji il faut nga toog tamit nga tudd say moroom osé na man diw laa bëgg a bëreel na ñëw ñu bëree. wax naa la ko nee naa la Ardo Ibou Afia Seck ndaanaan ñoo ñëpp soxla naa leen Aliou Fatfat kooku duma ma ko tudd ndax ragal la tapet la booy ñoo may sonal ak Laurent de mais man xooluma ko wax naa leen ko. mais yow sa digganteeg Seck ndaanaan combat bu neex la. wa na ñëw pare naa xanaa déggoo lu ma la wax. koo jàpp ne man ak moom làmb boole nañu rek te amateur bëgg ko rek Kandji production bëgg ko rek pare na pour bëgg bëre. yaa ngi wax xale bu dégg. waaye dégg fii la fekk baax Kër Mbay. kooku doomu géwël la de. xanaa déggoo la mu fii fii bu bu àll bi bu àll bi tooyee gars yi fii la ñuy wut see budd see ñax. mais Bousse ñi ngay laaj est-ce que teeluñu si yow. am 4 combats 4 victoires loolu ñooñu dina teel si yow ñooñu xoolal seen palmarès ak sama palmarès. waaw 4 combats 4 victoire taaw bu góor la fi de yombul de waaw. nga yaakaar ne loolay continué yàlla may da nga koy sante 4 combats lañu am 4 victoire ñu ngi siy sant suñu borom bu baax. mun la demee li may tàggatoo lenn kese la muy bon volonté yi. baay baay nañ leen dégloonte waay. bonne bonne volonté yi ñi nga xam ne dañoo jug pour jàppale mbër yu ndaw yi ñoo jar a jàppale parce que man mënu ma fekk mbër boo xam ne tabax na ay étage yow nga ne yow da koy dooleel jàppale te bu dul dara sax ñooñu instant yi làmb considéré tu leen ndax jeunesse bi bëggatuñ leen mais ñu ndaw ñii ñoo jar a jàppale parce que ñii ñooy mobiliser gis nga dèjà émission bi rek koñ bi fees na instant yi mënatoo jàll kon ñii lañ war a jàppale ko jàppale mbër yu ndaw yi te bàyyi ngistal bi def te yàlla tax mais taxaw ay damay defal sama rak damay li yooyu amu fi voilà jàppale leen booy yi ñii ñoo jar a jàppale noonu la demee man loolu laa moon lu may wax quoi. Laurent lañ soxla billaa wallaahi. ñii tamit yéen waa Kër Mbaye Fall seen problème ak Laurent Ndiago tam doo leen bàyyi jàmbur. naan Laurent booy ku ñëw ñu jël soxlawuñu ko takkuñu ko tàmpe yooyu eh, xoolee nañ ñëw moom lañ soxla nañ ñëw Léona Ndiaye nañ ñëw moom lañ soxla nañ ñëw tapal laa tapal laa na ñëw na ñëw seen fidèle téléspectateur ñun mooy lañu dëgg ragalum fuñ jëm billaa wallaay buñ naree ragal rek ah, kër billaahi eh ah doo xool doo xibi léegi buuse c'est dernier mot ci ki nga xam ne mooy Seck Ndanane ndax combat boobu amateur yi bëgg nañ ko essence eh, nii man ma gërëm ay nit ma gërëm samay waa nii nii ñoo ma gënal ma nekk fii di wax si ay sekk ndaanaan ak yooyu li may wax su ñoom wax naa su ñoom ba pare est-ce spectateurs fi ñu ñëw mooy Kër mbay Fall Boucher 2 moom la ñu ñëwoon seet si Boucher 2 mais yëf fi nag dafa commencé de xam naa ne mënatuloo continuer sa dernier mot. waaw noonu la demee di sant waa Kër Mbaye Fall gi yëpp waa Lonase baak Paris Foot baak di sant Modou mbaake di sant sama gaay yëpp waa Afia comprendre nga di sant sama yaay di sant sama papa. di sant samay tànta di sant samay mbokk di sant waa Géejawaay ñoom Omar ñoom Bàcc Maguette ah di sant sama DG Babs gaa yëpp su ma limee damay juum mbayaaw mbay doole yamul maa ngi koy sant misel gaa yëpp mën naar ñoom ñoo ñëpp ñoo war tey ñoo waroon a toog fii mais dañoo dem maaro xam nga xaar nañ la ba sonn mais ñëwuñu naar ndooy badagay Aliou Basum maa ngi koy ñaanal fi mu nekk yàlla na fa jóge badagay Jules ñoom ñëpp gaa yi nekk Kër Mbay Fall yëpp ay ñoom ñoom sayar sayar bu mag ay dara gaa yëpp xam nga Kër Mbay Fall gi yëpp daal képp ku caabi féete ginnaaw rek. man Tarba Mbaye ragal féete day xañ a wërsëg Tarba Mbaye laa. mbër bu ma seeti nag way loola yow damaa bëgg tey nga way. bëgg nit yomb na li jafe mooy nga dëkk ca bi nga jàppee ba tey bàyyi woo mbokk yaayu buuse lee laay la laaw